وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه نسلكه عذابا صعدا mbokk yi ñu ngi leen di nuyoo ci barab bu tedd bii su ngeen jàkkaarloo ak jëmm ji nga xam ne daa jaayante ak dundam lépp jébbal ko Serigne Touba fas yéene di ko liggéeyal mu di cheikh Mouhamadul Bachir ibnu cheikh Abdoul Khadir mbake mi nga xam ne sëriñ bee ko tànnal boppam teg ko ci bopp yoon wi mu yore kàddoom ak ak ak ak i tànkam ak i loxoom saa yu yëkkatee kàddoom ci ndigalul sëriñ Touba rek lay waxee tey jii ñu toog ci wetam fas yéene ànd bokk yi nga xam ne ñoo di waa kër sëriñ Dame Ndiaye sëriñ Dame njaay bokk ci taalibey sëriñ Touba yi dëkk ca sun borom. jox ko taraanga mu làmb ab xolam yëg ne taraanga ji yàlla jaarale ci loxoom cheikhul xadima ko moom mu jaayanteeg sëriñ Touba ngir liggéeyal ko nag liggéey boobee mu war a doon jumaa ju mu war a def ca Thiès mu dëppoo ak kër Serigne Touba. jumaa joojee nag mu wax ne moo koy liggéey ci ñàkku boppam ginnaaw bu mu jëlee terrain ba def ko addiyee Serigne Touba ba noppi bis boobu ñu war ko woote mu war a nekk le 10 juillet di amee ca Thiès moo tax ñu toog ci kanam Cheikh Mahamadul Basir mi nga xam ne mooy wax ci turu Serigne bi. waaye balay booba dañuy yëkkati kàddu gi jox ko Cheikh Khadim Mbacké mi nga xam ne danañu waxal njariñul tabax jumaa ak la ci sunu borom digee ak Moustapha sallallahu alayhi wa sallam lam ca wax ak sunu yaakaar Cheikhul Khadim lam ci liggéey. mbokk yi comme ni ngeen ko xamee ñu ngi fii ci bërëb bu sell di bërëb boo xam ne nii it ki nga xamee ne moom lañ fi fekk si di Cheikh Mouhamadul Bachir ibnu Cheikh Abdoul Qadir niñ ko waxee léegi nga xamee ne dafa jël léppam jaayante ko di ko liggéeyal Cheikhul Khadim mu yan yan bu diisit boo xam ne nii kenn ku nekk xam na ko ñaan sunu borom bi mu woyofal ko ci lool barke Xaadimul Mustafa ba it naan li mu am yëpp it sunu borom bi sottal ko barke Xaadimul Mustafa ginnaaw loolu mbokk yi li ñu fi tax a dajale moom mooy tabax bi nga xamee ne bëgg nañ koo waajal muy tabax boo xam ne nii dañuy tabax néegub yàlla néegub yàlla nag buñ koy tabax Euh, loolu ki nga xamee ne moom moo jug ngir ne di koy tabax ne da koy tabax na xam ne def na lu rëy rëy loo xam ne nii lu sun borom bi tabaraka wa taala bëgg la lool loo xam ne da koo soññ sun borom wax na ci alquran ne innama yuammaru masajid allah man amana billahi wal yawmi al axir wa aqama alsalata wa aata alzaka wa lam yaxsha illa allah fa asa ulaika an yakunu min almuhtadin tabax néegub yàlla mbokk yi lu war la ab jullit boo xam ne ni sunu borom bi may na ko kattanu mu man koo def loolu dafa war ci moom mu di ko def ak ku mën di doon nag bu yàlla dogalee nag sunu borom bi jox la xeewal joo xam ne nii mën nga ko caa def li gën ci yow te gën ci maanaam sag dund ak sag faatu moom mooy nga fexe ba di tabax di ko def mbokk yi jumaa nag buñ ko defaree ba pare rawatina jébbal ko sunu yaakaar Cheikhul Khadim loolu day mel ne dañoo jël maanaam ndox sotti ko ci biir ndox sotti ko ci ndox rek ndaxte Cheikhul Khadim moom bu ñuy jël jumaa di ko def ba noppi def ko jébbal ko ko loolu day mel ne dañ koo defal lim gën a bëgg ndaxte sëriñ bi dafa waxoon ci nuuru daaray ni ne bu wajaal buyuti kullaha masajida yaa kon loolu dafay am lu muy wane day wane ne sunuñ borom suñ borom ci boppam may na ko xéewal maanaam may na ko tawfiix yi mu mën a bépp kër goo xam ne nii am na ko rek sunu borom bi tabaaraka wa laa da ko koy defal mu nekk jàkka loolu nag ci doxinu sëriñ bi ak it eh, bu ñu xoolee mbooleem fu mu jaar daanaka sëriñ bi moom mbooleem fu ñuy wax ne fii jaar na fa li ci li gën a firndeel loolu mooy dañ naan fa mu jullee nga nee nga xamee ne moom la ñuy teg suñu suñu loxo kon loolu nag bu ñu yàlla mayee tawféex yi ñu mën ko def tawféex yi sëñ Daam Njaay nga xamee ne moom moo ko jël en charge ne da koy def ci def ko ci bërëb boo xam ne nii it mbooleem ñi nga xamee ne ñoom ñoo doon ñoo yor alal ci nekk ci dëkk bi soxla woon ko lool waaye nag bi mu ko amee moom xalaatu ci dara lu dul delloo ko yàlla waaye nag delloo ko Cheikhul Khadim loolu mbokk yi lu mat a sant la waaye tamit luy soññu la mboolem képp koo xam ne ni ab jullit la moo xam ne sun borom bi lépp loo ko jox dala koy delloo kon nag ñoo ngi ñaan yàlla sun borom bi defal ko ci tawféex yi mu mën koo tàmbale ci bismillahi rahmaani rahim waaye yeggale ko ci alhamdulilahi rabbil alamina ba noppi it ñëpp muuloo ko barke Cheikhul Khadim di wax ci turu sëñ Dame Ndiaye nga xam ni raqam lañ ñuy wax ci moom li nga xam ni bëgg na ko sumb Thiès muy ab liggéey bu am solo fas yéene ko liggéeyal sëñ Touba muy mbir mu rëy rëy rëy ndax euh, dañoo yaakaar ni suñ borom moo ko bëgg a dimbali moom daam ba xiir ko ci pour mu liggéeyal sëñ Tuubaa ndax euh, liggéeyal sëñ Tuubaa dama jàpp ni dafa bokk ci ngëneeli suñ borom yi ba du ku nekk ku nekk rek la koy jox ndax daam Cees la nekk waaye Cees mën nañ fa lim ay doomu aadam yu bari yoo xam ni ñoo ko ëppale fuuf te buñ xalaatoon wara suñ borom defoon seen nopp lu mel nii dinañ jënd fa gën ca Thiès gën sa Thiès bu ko defee mën na koo jëndee lu gën a cher tabax tamit lu dàq lii mu nar a tabax jox ko Sëñ Tuubaa waaye sun borom xulli nan fadla bi yadillaahi jaa tax yuuti ma yasha mooy dafa bëgg dimbali daam moom moo tax ndax liggéeyal Sëñ Tuubaa yombul waaye pay ju ngi ci te moom moo waxal boppam ni wa kullu man xadamani aw zaara fa najjihi fa najji fa najjihi waxfir lahu aw zaara moo ni képp ku ma liggéeyal képp ku ma ku ma liggéeyal baa nga ziyaar nga ziyaar ma mooy ñaan naa sama borom nga mucc ba pare mu jéggale say bàkkaar te yaakaar na ku suñ borom musal jéggale say bàkkaar texare moo fa nekk yàlla na ko suñ borom defal defal na ko ñun ñëpp waaye mënoo liggéeyal sëñ Tuubaa tamit te soppoo ko liggéeyal ko te sopp soppoo moom mënta nekk ñaar dañuy ànd te sopp gi mu sopp sëñ Tuubaa tax na mu jël la gën a cher ci la am suuf Cees gën caa palaas gën ca ëpp valeur mu yëkkati ko jox ko aadi sëñ Tuubaa ñu jàpp ni ca yam mu ni suuf si moom sëñ Tuubaa noppi moom na ko ba noppi waaye génne alalam teg ju ko liggéey ba noppi nii bu noppeet dinaa ko yëkkat jox ko Sëñ Tuubaa jox naa kon yéeneem ci kawe na lool waaye da ko defal na ko ku am fay te ku mën a fay nag muy muy muy Sëñ ndax moom moo waxal boppam tamit ni wa man ahabbani wa kullu man ahabbani waaw mooy ku sopp waaw wa kullu man ahabbani aw aw maala ilayya waaw farsuqu hudan aw maala mooy sopp gi ak liggéey gi ñooy ànd ndax boo ko boo ko soppee ba pare nga nga jëm ci moom mooy nga koy liggéeyal jël sa lépp jox ko bañ a dara lépp nga jox ko Sëriñ Tuubaa moo ñaanal suñu bopp suñu borom ni ko kooku yàlla nga ko jubal ko jox te jox ko alal te ñi nga xam ni xam nañ daam ci wàllum njub mu nekk ci yaruñu ci ñun ñi nga xam ne ay rakkam suñ borom wërsëgal ko alal moo tax mu mën a def lii kon sëñ Touba dafa suñ borom da koy may ba pare ni ko ñaanal ndax loolu lépp gis nañ ko ci ndax ndax daam bu amoon yéene te am yàlla jox ko woon wërsëg yàlla mën na ko fay yéene ji waaye du taxaw te sëñ Touba moo ko ñaanoon te muy suus joj joo xam ne ñun ñëpp dañu juddu Cees ku judd suus ji noonu nga ko fekkee woon ñaari famille yu mag ñoo ko moomoon ñu mag a mag ñu xam Cees njaboot lool suñ suñ borom dimbal leen ba ñoom ku ci nekk nga mën sa bopp ba nga utal sa bopp kër moo tax sa kenn mus ci dëkk ñaari ñaari pakk yu denn te yëpp ay titre foncier la mu yëkkati ko jox ko Sëñ Tuubaa waaye loolu nag du gulet ci moom ndax sëñ daam bu sa mii yëkkati fii alxuraan ju neex ji lool orphelinat la tabax fàndeen ay jirim ay jirim dong ñoo fa nekk ñu fay jàng alxuraan mu yëkkati së sëtu sëñ Mbàkke Buso yóbbu fa muy jàngale ñu ibbi fa juma fàndeen mu ngi door am juma ci Cees gi yëpp mu ngi door am juma moom mii moo fa nekk di liggéey liggéey bu mel noonu kon dañ koy ñaanal suñ borom musal ko ci cat moom daam musal ñu ci ñun ñëpp musal ci liggéey bi ba ñu tàmbali ko ci bismillahi rahmaani rahim jeexal ko ci alhamdulilahi rabbil alamin bu ko defee nag dañuy wax waa Thiès ni leen am nañ gan gu mag a mag a màgg di ànd ak tamit délégation bu am solo te mbir mi yiw wi yiw wi sëñ daam nee na moom mel na ni dafa ëpp ci moom mu bëgg ko bokk jullit yëpp rawat na waa Thiès ak waa carrière ga mu nekk kon bés ba na waa Thiès ñëpp génn rawat na waa carrière gan danga nga koy euh, gàttandu euh, dalal ko boo paree nga teral ko te mënuñoo am gan gu gën a màgg sëñ Mouhamadou sëñ Bassirou Mbacké mën nu ko am ci gan foofu Thiès tam tam ñëwal fa ngir ñëwal fa sëñ Touba te muy barab boo xam ne barabu sëñ Touba lay doon barab bi nag moo nekk nii moo nekk ni maquette bi nga xam ni ñett ñetti ñetti bolog la mhm. barab bi mu ngi nekk carrière ca Thiès nga xam ni ci quartier résidentiel yi Thiès la bokk nekk ci xolub Thiès nekk foo xam ni wax dëgg yàlla bu yàlla bu ñuy suñ borom dimbalee ba lii taxaw fa am naa ci yaakaar ni buñ ci jógee bu dul sakk atit jumaa ju pareet ci raison bu nekk am nañ ci yaakaar mbokk taalibe yi dinañ tabax ci raison bu nekk jumaa joo xam ne juma euh, juma dañ koy jox aadee Sëñ Tuubaa ndax ñetti bolog la jo boo xam ni jumaa ju mag yi ngeen gis mooy bi nga xam ni si lay góor ñi di jullee étage la R plus 1 la R plus la macha allah beneen bi mooy bi nga xam ni moom la soxna di jullee moom it R plus 1 la ci kaw am na centre conférence mais tamit day am li ñu naan bibliothèque numérique nga xam ni lépp luy wàllu xeetu xam-xam yi dañ fay dem di ko fa gëstoo ak ci wàllu jaar-jaaru mag nga xam ni liñ ci jublu mooy mu liggéeyal fa sëñ Touba liggéey bu mucc ayib ndax sëñ tubaa euh, boo koy liggéeyal it li ci gën ci liñ koy liggéeyal mooy defal ko ay barabu kay yàlla ak ci wàllu alquraanam ji te ci loolu la fas yéene liggéey ànd ko ak jullit ñëpp nag jullit ñëpp. wax ji nag daanaka du jar muy gudd ndax liñ ci waroon wax Cheikh Khadim wax na ko la ca des sëñ bi dana ko wax waaye ñu xam ne rek tuuti ne Cheikhul Khadim sunu yaakaar jooju 1895 <coughs> ba 1927 bu ñu demee àjjana fanweeri at ak ñaar la. fanweeri at ak ñaar yëpp nag ci résidence surveillée la ko nekk ñu xam na it amutoon nag tubaab yi benn contentieux du suuf du alal diineem rek moo leen boole diineem rek moo leen boole kon nag képp koo xam ne jóg nga ñu lay tudd nga di ko tudd di la tudd diine war na laa jaral lu na ci àdduna kon nag cantuk daam moom ak ahma lott naa ci sañ bas moo koy waxal boppam waaye li may wax rek mooy bokk julliti Cees mm-hmm. jumaa ji buñ koy tabax mm-hmm. ay jinne taxut ay malaayika taxut ay jullit tax ñu koy tabax wa annal masajida lillah na ngeen xam ne it daam mi am yéene jënd ñaari titre foncier yu taqaloo benn bu nes benn bi soixante-dix millions benn bi cinquante millions muy cent mu fas yéene ko tabax ci àll boppam ne it mobilisé na xaalis bi koy defar ba mu àgg yéen bokki Thiès bokki jullit Thiès bokki réew mi bu leen ko ca seetaan na ngeen xam ne ku fa yóbbu ab fer wala ab ciment yool bu daam am dang ko ci am te du wàññi dara ci ab yoolam te it lu waay néew néew doole nag am na kàttanu ab fer wala ab ciment te gannaaw sun borom moo wax ne ku tabax yont moo wax ne ko tabaxal sun borom jàkka mu tabaxal la njënd ci àjjana mhm. ngir la bu leen ci kenn jiitu yéen waa Thiès ak jullit yëpp te sëriñ bii di yaayoo na fukki réseau ñeent yi nekk Sénégal yëpp fenn fu nekk ñu def fa jumaa ju mel ni Masalikul Jinaan ndax tay la na mbakkanam ay yoon ci lislaam kon nag nañ ci góorgóorlu bu baax a baax a baax ki nga xam ne mooy ki yéene jëf jëf ji ci moom la jaar moo ko indi ci ñun ñu àggale ko ci sëriñ bi ba sëriñ bi joxal ci boppu ndigal bañ tànn bis bi ñu war a teg xeer wi mu war a tolloog le 10 juillet ca bisu gaawu te bisu gaawu xam ngeen ne Serigne Touba lu bari ci la ko def ndax ci la fi bàyyi ko woon dem ci géej gi yu bari ci la ko def ci bisub gaaw kon bisu barkeel la ci ñun kon ñu ngi koy yëgal ñëpp danaa ci dellu waat di nuyu itam Serigne Fallou Bousso mi nga xam ne mooy xalifa mu Massamba Kanni ak rakkam doom suñ Cheikh rakkam suñu Cheikh na ak ñi fi teew ñëpp ak suñu Cheikh liggéey bi di jotle kàddu suñ bi rek ci mbégteem ndax kenn defalu ko lu ëpp lii ndax moom ab liggéeyam lislaam la génnul lislaam wax naa ko keroog ci bi waa daara Hizbut Tarqiyyah di siyaare may leen Cheikh Mouhamadou Mountakha ku ko xam xam ne itteem génnut ginnaaw jaamu yàlla yi te jàng xasida yi yëpp ci la dugg amul beneen liggéey ak yitte lu waaye si nit ñi am pësef te dëggu jëm ci Sëriñ Tuubaa kon lii ku koy def ko ne moom ngay gàtt ci biiru liggéeyam ki yëkkati jëf jii nag di Serigne Dame Ndiaye ak rakkam suñ Dame Ndiaye moo ko def ndax moo jënd ñaar titre foncier titre foncier bi la ci gën a kiimaane mooy pàkk bi boroom ki ko jëkk a moom 1912 la ko jëkk a moom 1912 te xam ngeen ne ci la ci lañ indi Serigne Touba Njaarim kon loolu am na lu muy firi te pàkk ba kenn musu ca dëkk dafa mel ne Masaalikul Jinaan kenn musu kenn musu ca dëkk këru Njaarim bi noonu la meloon Serigne Touba lépp lu ko suñ borom def rek day mel ne li ngeen di tudde léegi reservation moom la ko suñ borom defal lu agsi rek da waxoon na ko Cheikh Mamadou Moussa ne ko sama mbir yëpp noppi na ci daa mel ne rab rab bi nga xam ne dafa defar ay séram ay soru ay soru rabal ba mu ba mu jekk mu ko ci barab fu fu jamono toll ma tàllal ci wenn sor ñëpp ni lii ana fu mu ne woon kon mbirum Sëriñ Tuubaa lépp noonu la deme kon nag moom na xam ne dugal na àllam fu ko matu dugal ndax rasulullahi dafa wax ne man bana lillahi masjidan walaw ka mafxasil qasa qata bana allahu lahu baytan aw qasran fil janna ñaan lu tax tàggum picci sax ko ku defaloon suñ boom néegu yàlla bu tonoon suñ boom dana ko defar appale ci àjjana kon loolu nañ xam ne dara ëpp ko tuyaaba kon ku yàlla defal tawfiix suñ borom wax na ci alxuraan ne hal adullukum ala tijaratin tunjiikum min asaabin alimin tuuminuuna billahi wa rasulihi wa tujaahiduuna fi sabilillahi bi amwaalikum wa anfusikum kon kon joxe sa alal dara gën ko màgg ci lislaam masalu lasiina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi ka masali xabbatin anbatat sab'a sanaabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yu liman yashaa wallahu waasi'un aliim ndax suñ boobu noonu lay jëflanteeku jaamam ki nga xam ne dafa jël wenn pop pepp dugub ji ko ci suuf boo mu màgg bu ci ne def ay gub gubb ne def ay téeméeri pepp suñ boobu noonu lay fayee kon loolu mooy jif ci yoonu yàlla kon nag na sant yàlla bu baax te xam ne ku yàlla defal tawfeex ba nga jëfal Sëriñ Tuubaa na nga xam ne say aaju fajoo ndax loolu moo ko wax waq di xawaa i jëlle si na daa moom fii xidmati wa hablahum maaraam fi mu ko wax bari na loolu kon képp ku liggéey sëñ Tuubaa lépp lu si di ragal mucc nga ca lii di yóotu na la woon danga ko jot kon na ko yàlla dimbale kattanal ko wéral ko ba liggéey bi nga xam ne sumb nañ ko ca cees mu nekk ci biir dëkk ba mu àgg jàmm ba mu jébbal sëriñ bi ceeb yi ba sëriñ bi joxe ndigal ñu ubbi ko ñu ànd ko ki nga xam ne moom la tànn mu jiite ji ko ñu àndaat ak moom kon ci ndigalu sëriñ bi incha allah buñ ci àggee ci bis ba Euh, maay demal sama bopp ci ndigalam ak ñi ma booleel ngir teewal ko fa ngeen xam ne itam jàkka ja jullit yëpp ko bokk. taalibe Sëriñ Tuubaa yëpp ñu ngi leen ko yëgal. ka ca jiitu nag mooy ko ko nekkal Cees ak la ko wër di Serigne Saliou Touré di ko ñaanal suñu borom mu guddal aw fanam te wéral ko te sàmm ko gën ko fee sàmm ndax magum lislaam la magum yoonu murid la koo gis xam ne nitu yàlla la. kon ñooñu ñu baax leen ci kaw suuf ndax wa maa kaana allaahu li yu'adhibahum wa anta fihim loolu rasulullahi suñ borom nekk gi ci kawoon su kaw suufa tax kon nit yàlla yu mel noonu nekk gi nekk ci kaw suuf daa tax jàmm di fi am di ko yëgal mboolem taalibe Serigne Touba yi yëpp ndax moo fa yor kàddu suñ bi kon bu ñu ko tuddee taalibe Serigne Touba yëpp tàbbi na ci biir ña nga xam ne ñoo fa yor wàllu adduna gi itam tàmbalee ci gouverneur te ñu wax ma ca taxawaayam ci kayit yi moo préfet ñañ ko àndal ñëpp ba ki nga xam ne yàlla def mooy meeru dëkk ba di Talla Sylla te yàlla def mu doxali sa doxali sama digg ak Sëriñ ndax taalibe ma Sëriñ Tuubaa rek lañ yaakaar waaye yàlla def mu xool ba xelam daj ma mu doxali ma sama digg ak Sëriñ moom itam wax nañ ma taxawaay bi mu ci def ñu ngi ko ci sant di ko jigéen te xam ne yàlla loo ko defal Sëriñ Tuubaa loo ko defal kon nag ñi ngi ñaan ñu àgg ci ak jàmm xam ne wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a allahi ahadan néegub yàlla néegu jàkka néegub yàlla kon képp ku julli rek kenn génnewul ca xam ne alxuraan kat am na lu ñu wattandiku la woon taxasu masjidan diraaran wa kufran wa tafriqan bayna al muminin wa irsaadan liman xaaraba allaha wa rasulahu min qablu wala yaxlifuna in aradna illa alxusna wallahu yashhadu innahum la kaadibun daal koy ca tege na laa taxum fii abadan laa taxum fii abadan kon jàkk joo xam ne xew na loolu léegi nag jàkk joo xam ne nit ñi dañ ko tabax te jàkk ja mu wóor la tàggale julli ji lay jëriñ ndax ñaari jàkk yu sësaloo wala jàkk joo xam ne da nga romb jàkk ji dem julli ji ci loolu nax sa bopp la ab jullit jàkk joo xam ne tabax nañ ko te ussi sa la ala taqwa wëroo ko faaroom bu di julli ci yeneen jàkk kon loolu itam yéen ñi nga xam ne yéen tabax jàkk ji ngeen bàyyi ko ci xel di ko digal ñëpp itam ñu xam ne jàkk yi néegu yàlla ndax suñ boroom bu doon amum néeg ci kaw suuf jàkkale doon kon jàkk ji nag ñi ngi rafet njortu ci ne mën naa bokk ci la masjidun ussisa ala taqwa di ñaan yàlla ko suñu borom dugal te daray njistal bañ cee dugg ndax wa rubbama ibadatun kathira qad qad afsadataha lahzatun haqira